nous sans langue de bois nous nous on est pour les populations et dama la comme toute politique la mise en œuvre dina am quelque quelques couacs évidemment parce que lors des dix ans de de la décentralisation le président a institué la journée nationale de la décentralisation léegi journée boo xam ne ci li ñu toog évaluer l'acte trois de la décentralisation mais à l'évaluation évidemment il y des choses à améliorer. comme là par exemple ñun ñun maire yi dañuy laaj. plus de transfert envers les collectivités territoriales par exemple président def na ci effort yu bëri hmm. parce que boo xoolee les transferts envers les collectivités territoriales ont presque été multipliés par trois hmm. la réforme de la selle Hein, euh, la réforme de l'état civil la mise en place de la fonction publique locale il y a autant de choses yoo xam ne def nañ ko mais euh, la décentralisation la l'acte trois de la décentralisation mënul bu complet en dix ans c'est pas possible quand tu vas dans les pays européens ils sont à 50 ans de décentralisation mais ba léegi maire yi am nañu classe tout va bien tout va bien quoi non j'ai pas dit que tout va bien non <laughs> non nous au niveau de par exemple l'association des maires du Sénégal ah déedéet déedéet yow ma réponse dama ne ne beaucoup de choses ont été faites mhm. mais il reste à faire mais c'est tout à fait normal ñun tey bu ñu sañoon am na compétence transfert yoo xam ne ñu jox nañu ko mais il faut que ñu yokk ko mhm. les transferts par exemple il y a beaucoup le président a fait par exemple boo seetee par exemple Pakasen bi lu maire yi di xeex la ñun on a un combat boo xam ne ñu ngi koy mener pour que l' état fasse beaucoup plus de transfert envers les collectivités territoriales pour que les compétences transférées yi ñu dënk ñu mun ko ñu mun ko accomplir